wa salaamun ala ibadihi alladina astafa asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa noo ngi nuyu bokki fi teew yépp te di ci jiital kilifa yi di tënk rekk kon lu aju ci njàng mi ñuy defee ci daara yi ñuy tuddee école te mu doon genn wàll ci njàng miñ tëral mu mën a nekk ci dëkk bi ni ko mbokk yi jiitu waxe rek bi sëñ bi santaan sante rawdu rayaxiin mu taxawal ko ci lii mu bëgg dañoo taxawal ay kuréel kuréel ya nag moo am ca boo xam ne mooy féetewoo njàng mi ñuy amale ci daara yi ñuy tuddee école kuréel booba it ni yeneen kuréel yi def rek dañoo seet wàll googee ña ca am xam-xam am ca jaar-jaar ñu woo leen ñu bokk def liggéey boobu yi lu jege juróom fukk juróom fukki nit ñoo xam ne am nañu xam-xam ci wàll gi am ci ay jaar-jaar ñii di ay jàngalekat ñii di ay inspecteur ñenn ñi sax liggéey ba à la traité ñenn itam nekk di liggéey ba ba booba ñooñu kon ñoo ko liggéey biñ ko liggéeyee biñ koy liggéeyit dañoo seet ay jubluwaay ndax xeetu njàng wu ci nekk dañuy tëral ay jubluwaay bu dee njàng mi nag jubluwaay yi ci yiñ ci tëral am ko ci bëgg ko sottal li ci jiitu mooy fàggu am njàng njàng mu ñuy defe ci jàngu yi ji tuddee école njàng moom day bàyyi xel yitte yi dëkk bi yitte yi ci wàllum njàng te la ca jiitu doon diine dëkk bi njàng mu fi am mu diine da cee jiitu ak nag yeneen xam-xam yi ñuy aajowoo yépp njàng mu mel noonu ñu wut ko yembal ko fàggu ko mooy jublu gu njëkk gi jublu ga ca tege mooy njàng moomu mu doon lu dëppoo ak gisiinu sëriñ bu mag bi nga xam ne moo sosoon dëkk bi jaar Cheikhul Xadim radiallahu anhu ñetteelu jublu gi mooy jàngu yi fi nekk daara yi fi nekk te ñu tudde leen école daara yooyu ñu taxawu leen dëgëral leen yi fi nekk ba noppi ñenteelu jublu gi mooy ñu jàppandalal ku génne ci njàng mi mu mën a wéyal am njàngam mën koo wéyal ci njàng mu kawe njàng mu kawe ci wàllu yu wuute itam mu am man-manub wéyal am njàngam ci wàllu yu wuute ci daara yu kawe yi yooyu mooy jublu yi nga xam ne am nañ ko ci njàng mii muy njàng mi ñuy defee ci daara yi ñuy tuddee école bu dee nag lu jëm ci lañ fay jàngalee muy li ñuy tuddee programme moom dañoo xool xeeti njàng yi am ci réew mi dañ leen di defe ci daara yi ñuy tuddee école biñ ko xoolee ñu seetlu na ñetti xeeti njàng am nañ ci réew mi njàng mu lu ñu tudde njàng mu suufe tañ koy defe ci béréb yu ñuy tuddee école ñetti xeeti njàng yooyu yi ñu am ñaar yuñ ci gis ne moom mën naa nekk ci dëkk bi am ñaar yuñ gis ne mën naa nekk ci dëkk bi mën naa bokk ci njàngum dëkk bi muy njàng mi ñuy tudd njàngum araab ak lislaam ak njàng mi ñuy tuddee njàngum franco arabe ñaari njàng yooyu lañu jàpp ne war nañoo mën a bokk ci njàngum dëkk bi ñu tànn ñaar yooyu kon ne na bokk ci njàngum dëkk bi ñaar yooyu nag bi ñu leen tànnee it ginnaaw ay njàng yu fi nekkoon la ay daara taxaw ci daara yu réew mi moom ak daara yu nit ñi moomal seen bopp dañ nekkoon dañuy dellu ci programme yi fi nekk ñu xool ko bu fekkee am na ci luñ mën a téye ñu téye ko bu laaja ñu dolli ci ñu dolli ci bu laaja ñu joyant ñu joyant biñ ko xoolee itam ñu gis ne mën nañoo téye yi fi nekk waaye rek dolli ci luy tax mu gën a méngoo ak dëkk bi luy tax mu gën a mën a faj aajooy dëkk bi ak waa dëkk bi kon ñaari njàng yooyu muy li ñuy tuddee njàngum arab ak lislaam ak li ñuy tuddee franco arabe dañoo jël programme yi fi nekkoon waaye nag dugal ci ay coppi yuy tax mu gën a dëppoo ak dëkk bi gën a mën a faj aajooy aajooy dëkk bi coppi yooyu li ci gën a fés mooy fu ci mën di doone ci ñaari njàng yooyu lu ci aju ci lislaam ak araab lépp loo xam ne sëriñ Tuubaa bind na ci luñ cay jàngale dañ koy dañ koy takke dañ koy takke ak mbindum sëñ Tuubaa lépp lu ñu jàngale ci arab ak ci lislaam te muy lu sëñ Tuubaa bind dañuy takke loola ak mbindum sëñ Touba moom mi mooy kon dañuy takke njàng mi daal ak euh, mbindum sëriñ bu mag bi radiallahu an loolu mooy coppi euh, gi ci njiitu geneen coppi gi it mooy ñu dolli ci ñaari matière ñaari matière yoo xam ne it dañoo jàpp ne njàngub dëkk bi laaj na ko benn matière bi mooy li ñuy tuddee tasawuf ak suufiyanke beneen bi itam mooy lu ñuy tuddee yarub murit yarub murit matière la bu ñu ci dolli ak tasawuf ndax yaar yooyu jàpp nañ ne lu dëkk bi aajo wala ci njàngam njàng muñ fi def mu nekk dana jaadu ñu boole ko ca moo tax ñu laale jaar matière yooyu yi yokk ko ci programme yi fi nekkoon ci coppi yi bokk na ci it ñu ne daara yii fi nekkoon ñu daan ko tuddee école rawatina liñ daan tuddee école yi arabe yi li ñuy tuddee matière scientifique yi da cee xawoon a euh, néew rawatina ñuy jàng ba ba secondaire secondaire day baaxoo am li ñuy tuddee ay série ay série littéraire ak séeri scientifique waaye daar yi ñu daan tudde école yi arabe ci Sénégal gépp day mel ne séeri littéraire rek moo fi daan am ñu ne nag kon nañ waajal ci programme bi luy tax daar yooyu man di am ay série scientifique te la koy mayeem la ca jiitu mooy ñu wut programme yooyu kon programme boo xam ne matière scientifique yi ñu wutal leen programme moom it ba ëllëg école li ñuy tuddee école arabe yi di mën a am ay ay série scientifique loolu tam bokk na ci li nga xam ne ak ak yeesal la ci te mooy kon fàggu fàggu programme ci matière scientifique yi ba ay série scientifique di mën a am ci enseignement secondaire ëllëg bokk na ci tërëliin tërëliin wi nag tërëliinu njàng mi moom nin ko xamee rek ci école yi tërëliin wi ñu ci xamoon rek moo ci nekk ba léegi fii itam ndax mooy ñetti ñetti xaaj la li ñuy tudde élémentaire ak li ñuy tudde moyen ak li ñuy tudde secondaire mën nañu wax ne mooy njàng mu njëkk mi ak ma ca topp ak ma mujj ci njàngum mu suufe mi at yi itam at yiñ xamoon rekk la élémentaire juróom-benni at waaye ñeenti at secondaire ñetti at waaye fii nag dañ ne ci sunu njàng mi ñuy tëral ci dëkk bi moom dañuy bëgg anam gi ñuy jàngalee mu mu bañ a doon rekk anamuk sa anamuk sa daa yàgg yaatu ci réew mi ci njàngalem sa nit ki ñu di ko sa rek muy mokkal walla muy xam waaye jëfandikoo ko mën na koo jafe ñu bëgg nag di ko defe ci anam goo xam ne kiy jàng li muy jàng da koy mën a jëfandikoo day day day man saa bu jàngee dara rek bu fay jóge rek bu dajee ci dundam lu mu war a lijjanti te lam jàngoon man koo lijjanti dana ci mën a sukkandiku mën koo lijjanti doxin woowu itam lañ bëgg di ko doxe ci njàngale mi leneen itam ci ni ñuy jàngalee it dañ ciy bëgg di jëfandikoo sun làkki bopp yi sun làkki bopp yi itam dañuy bëgg di ko jëfandikoo ci jàngale rawatina wolof muy lépp loo xam ne mën nañ koo jàngalee wolof ci programme yi ñu wax ñu de ko ci jàngale boole koog yeneen làkk yu ñu daan baaxoo jàngale waa ñu dolli ci nag di jàngale wolof ndax xam nañ ne di jàngale làkk wutul saw làkk wala di jànge làkk wutul saw làkk am na gàllankoor yu muy indi moo tax luñ mën a wàññi ci gàllankoor yooyu dañ koy wàññee di jàngale wolof saa buñ ko mënee lu jëm ci nag ku jànge ci njàng mi ba noppi lan lay mën a def lan la ko njàng moomu di may lim koy may dana ko may mu mën a wéyal am njàngam gën koo soril gën a soril am njàngam bu bëggee gën a soril am njàngam it mën na koo soreele ci jàngu bii nga xam ne sëñ baa ngi koy naal muy jaamiyaatu Cheikh Ahmad al ci moo xam ci jàngu bi sëñ Abdou Lahad loo doon waxtaane léegi la te mu aju ci lislaam ak arab moo xam ci yeneen yi nga xam dañ ko waxtaane ci kanam lu ci ne danañ fa mën a àggale am njàngam ku génne ci njàng mii dana mën a wéyal am njàngam ca foofa bu ko neexee itam mu mën koo wéyale ci majalis yi nga xam ne sëñ Mbàkke Abdurahmaan doon na ko leeral moom it ndax ki amee bac ci njàng mii di amee ci daara yi ñuy tuddee école ki fi amee bag bu ko neexee itam mu dem ca majlis ba ca tolluwaay bu kawe ba man fa wéyal am njàngam kon ay buntu daal dana ubbi ko ci kanamam dana ko mën a wéy itam ci beneen jàngu bu ka bu kawe bu ne moo xam ci biir réew mi la moo xam ci bitim réew mi la loolu lépp kon loo xam ne itam ku am bac dana ko mën a liggéey muy liggéey boo xam ne am bag mooy tax nga mën koo liggéey ku amee bag ci njàng mi itam dana mën a liggéey liggéey booba kon bu dee ku bëgg dugg cib liggéey la njàng mi dana ko ko may bu dee ku bëgg a am njàngam itam gën koo kaweel it njàng mi dana ko ko may lii ci tënk mooy li aju ci njàng mi ñuy defee ci daara yi ñuy tuddee école ni nu ko waxe woon nag euh, njàng mii moom amut lu koy jëmmal fim ne nii ci jàngu bee sëñ bi di def waaye nag tëralin la wuñ tëral ngir dëkk bépp képp ku fi bëgg ubbi jàngu boo xam ne day doon daara ju ñuy tuddee école mu dëppale ko ak tëralin wii mu doon benn li ñuy tuddee école arab wala mu doon li ñuy tuddee école franco arab lum ci tànn rek mu dëppale ko ak tëralin wii loolu mooy kon fi ñu tollagun ci liggéey bi manees naa wax ne liggéey bi sax sotti na ay mottali rek ak i jekki-jekkal xëy na moo ci des maa ngi sant ñëpp du jéggulu ñëpp wasalaamullahi aleykum wa rahmatuhu wa barakaatu waaleykum salaam jërëjëf sëriñ Cheikhouna yaag ñi nga àndaloon liggéey bi leeral na bu baax ne moom it ñi nga xam ne ñoo yor ay jàngu ci nekk ci dëkk bi ñoom ñoo nekk ci commission boobu nga xam ne ñoo xalaat fi fi njàng mi toll